alors tonton Diaga laata ñuy ñëw dugg ci actualité di waxtaanee politique parce que il n'y a pas que la politique mhm. justement il y notre société qui fait cette mhm. euh, thèse euh, de politique là aujourd'hui dañuy waxtaanee financement yu bëri yi góor ñi di financer jigéen ñi te léeg-léeg sax jigéen ñi di leen financer. Mhm. nga gis góor goo xamante ni day tëddee njaaxaan naay mel ni jàng benn asma di ko financer donc waaw loolu rek lay xaar. dafa am ñoo xam ni. Euh, dóor la yoo xam ni euh, du ma leen xarab du wax parce que. dañoo <laughs> dañoo non non cest dañoo tabe. <laughs> dañoo tabe xam ne dañoo tabe. macha mhm. maanaam dañoo mën a maye daal. Mhm. cest à du gel bi rek moo tax ñuy maye boo demee seen kër dañuy maye. Mhm. kooku jikko la. duma ko wax dara. mais dafa am koo xam ni dafa ñëw fekk roqeya bëgg ko bi mu ko bëggee mu fekk fa beneen faal njaga il faut mu wane dooleem. waaw wan ko dinaa la defal. loolu diw mii dul defal. loolu nag ñàkk a gëm sa bopp. da ci joué mais tamit xam ni jigéen ñi dañoo bëgg xaalis c'est-à-dire que ñoom xaalis leen gënal seen amour. ah. <laughs> bëgg ñaaw. day dina ñaaw sa incha allah <laughs> xam nga lu tax. ñu ngi relation. bu ñu demee demee demee demee demee ba nga xam ni dañoo jiital am-am dàq mbëggeel relation ba foo am-am bi jeexee relation bi jeex. Mhm. waaye am na jigéen ñu gore ñoo xam ne tey mhm. bu ñu la waxee tey ni ñoo ngi ci sixième étage li leen ko may démb mooy xaar ko fa. Mhm. am na jigéen ñoo xam ne tey ñoo daan ñoo daan ñoo daan jox seen paas seen copains yi ñoo daan jëndal souverainement ñoo leen daan jàppale ba tey kooku takk liggéey yàlla wërsëgale ko mu dugal ko ci kër goo xam ne bu la laajee bu la waxee fa mu jaar am jigéen ñoo xam ne ñu mel ni asma <laughs> lu waxtaan bi neex neex neex neex neex neex neex neex neex waaw waaw boo yegsee ma ni bonsoir uh-huh. <laughs> la ñuy xaar parce que Orova saa su nekk rek day am. fa bàyyi. Ah, léegi bi reer bi ci bi nga uh-huh. nag boo xasee ba ni bonsoir ba yegg si. Mm-hmm. soxla li ngay wax intéressé tu leen. mooy tàggu bi rek li nga fiy bàyyi. ñu <laughs> ngi bëgg ñaaw ndax mbëggeel waaw <laughs> ci ñaari côté yépp nag da ciy am. Mhm. mooy parfois tamit gel bi. Mhm. gis góoku góor ki xam ni kii euh, euh, euh, jantal la a ah, benn bakkari la. boo ko fi bàyyee bu ngoonee day dem seeti ji diw wala day dem seeti ji diw day dem seeti ji diw léegi nag li muy def moom mooy da koy jéem a téye. Mhm. nan la koy téye mooy mën na koo téye ci jongeem. mën na koo téye ci xaalis mën na koo téye ci ci ci ci lu baree baree hmm. baree bari mais relation yi ñuy seetlu léegi léegi léegi ci réew mi mooy lu ci baree baree baree bari bari bari baree baree mbëggeel dañ koo denc hmm. wut am am imaginel da benn xale bu jigéen boo xam ni day am ñaar day day bëgg professeur hmm. te yàlla tax xaarul ci professeur dara dara ci alal ci alal merci xaaru ko xaaru ko xaaru ko ci dara ci alal. mais moom dafa am ay soxlay boppam. dafa am ay soxlay boppam. dafa am ay bëgg-bëgg boppam yoo xam ne yow mënuloo ko koo fajal. Mhm. et pourtant moo dàq ci groupe bi mais yàlla ki ko ki ko nattoo mu bëgg ko yorul dara léegi day am beneen waay yoo xam ne ci wetam. tonton Ndiaga lay doon. tonton Ndiaga <laughs> moom it xam na ni. Mhm. asma mii bëgguma mhm. ah yow la bëgg te yoroo dara mhm. mais man damay bëgg a ay koppar mhm. saa su nekk di ko convaincre ci ay am am ci ay restaurant ci ay voyage ci ay ci ay marque pour wan ni kookat toogal sama wet kee du dara mais marque yooyu nga jox yëpp am am ay crédit crédit yooyu nga koy jox yëpp du la ci masa woo xale yu jigéen ñi exemple na ci góor ñi bàyyi xel da ngay gis <laughs> benn gel bu ci wootee. ñu mhm. la yónnee ma crédit. Mhm. nga yónnee ko cinq 5000 francs crédit. xam nga kañ ngay xam ni crédit bi jeex na. Mhm. mooy bu ñu la envoyé ni la sama crédit jeex na. bu la ci masa woo ni la bonjour. beneen gaañ boo xam ne yorul dara lay partager crédit bi lay partager connexion bi moom lay woo saa su nekk léegi ndax kon mbëggeel amati na ndax mbëggeel amati na. ñoom ñëpp laa ni. Mhm. Hmm? am na de waaye am na ñu naan doyatul. merci foog mu ànd dara. waaw <laughs> ah, jërëjëf. ah damaa bëgg Binta am na. dafa am ñu ne am na mais doyul. <laughs> <laughs> foog mu ànd dara waaw nag ànd ak dara ah. problème bi. Euh, souvent dinaa wax samay wax ni euh, dinaa bëgg Binta doon sama doon sama gel waaye bëgguma mu doon sama jabar. Mhm. Binta dina bëgg ma ma doon faram. waaye du bëggul ma doon jëkkëram. du loolu la wolof Ndiaye di naan aussi ci. ndax comprendre ak doxinu nit mhm. ci nga xam ne kii far la kee jëkkër. voilà léegi léegi lu tax. lu asma damay doxaan Binta. ma mel ak moom kuy kuy sëy ak moom. Mhm. maanaam jàkk ji rek moo ñu tàqale. ah. jàkk ji rek moo ñu tàqale mais bu bis jotee ma war a takk nag kii amul lu bees lu ma war a war a war a wan sëy bi dama ko fiy bàyyi. dem seeti seeti seeti seeti seeti seeti keneen mhm. binta soxlawuma bëgguma mais sama am am la bëgg nobuma mais ay soxlaam lay dabu ci man bëgguma jëkkër waaye bëgg na ma far ok moo tax mbëggeel yi léegi yàqatul benn nelaw mbëggeel daan yàqi nelaw da nga daan am am ak am ak am ak am ak sa am ak sa copain problème euh, ku la gis day day defee ni sa bëñ day metti parce que li ngay yëg sa yaram day nagam da ngay waye di doo solu ba nit ñi dañuy jàkkaarloo ni la xanaa dangaa ngaa xuloo teg diw. Hmm. parce que boobu mbëggeel amoon na mais boo xuloo léegi ki ngay gën a mën a sañse ah. <laughs> dañ ko fay bàyyi dem seeti ji keneen. très léegi lan lan kan moo ciy perte. ku ciy perte. ku ciy perte. Euh, jigéen bi nga xam ni xam na boppam dafa am nga lante yi souvent duñu perte si jigéen ñi ma wax ak ñoom góor ñi dañuy defee ni dañuy perte euh, mais di nga ci ku jigéen koo xam ni dina la lekk di la lekk di la lekk te doo mës am ci moom foo